mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu seen mbokk Imam Moctar Ndiaye moo dellu si leen laay biir ci waxtaan yi muy am ak yéen saa su nekk te incha allah nuy ñëw ak yéen ci wàllu tenji ak ay charte yi nga xam ni moom la àndal moom tenji xam ngeen ni mbokk yi ci lislaam ndaw si nga xam dafa nekk ci buumu sëy ñàkk boroom këram kooku amul sañ-sañ tàbbi ci beneen sëy li feek jàppul li nga xam ne mooy tenji ji bi mooy ñeenti weer ak fukki fan yi muy toog loolu lañuy tuddee tuddee tënj te loolu islaam moo ko santaane farata la goo xam yàlla moo ko gàll ci bépp loosu jigéen boo xam ne ñàkk nga sa borom kër kon ci lislaam jigéen amul sañ-sañu sa jëkkër faatu rek nga tàbbi ci beneen sëy jigéen amul sañ-sañu sa jëkkër fase la rek nga tàbbi ci beneen sëy bu la sa jëkkër fasee da ngay jàpp idda ñetti weer yu mat sëkk ci wàll wala ci weeru wolof balaa ngay dugg ci beneen sëy bu sa jëkkër faatoo génn àdduna faw nga toog ñeenti weer yu mat sëkk teg ci fukki fan balaa ngay am sañ-sañu dugg ci beneen sëy moo tax suñu borom mu ne walladina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arbaata ashhur wa ashra ñi nga xam ni dañu ñàkk seen bakkan yéen góor ñi bàyyi fa ay soxna soxna yooyu de da toog xaar ci seen bopp ñeenti weer ak fukki fan yu mat sëkk balaa ñuy am sañ-sañu dugg ci beneen sëy kon nga gis ni kon idda yàlla sunu borom ko sant bépp jigéen boo xam ne ñàkk nga sa boroom kër yàlla moo la ko sant idda nag nañu xam ne wala tey ji nag nañu xam ne jaamu yàlla bu rëy la jaamu yàlla bu rëy la boo xam ne yàlla daf ci gàll ay charte yoo xam ne bépp jigéen wax na ko bàyyi xel bokk na ki charte yooyu mooy yow ndaw si bu fekkee yaa ngi sa jëkkër dafa faatu bu faatoo rek danga nga wax tàmbali idd li nga xam ne mooy tënj bi dugg ci liggéey bi wala nu annoncé leen sa jëkkër faatu na rek tàmbali liggéey bi bul toog mu di xaar naan damay bàyyi ba koor bi ñëw ba nu rob ko ma su tàmbali li nga xam ne mooy tënj bi rawatina sa jëkkër faatu bitim réew nuy toppatoo koor bi di koy indi ba bën koy rob nga ni buñ ko robee si nuy tàmbali eh, tënj bi déedéet loolu du sharia li leen lislaam sant mooy buñ la annoncé ni faatu na ci bitim réew rek yow sangul ba set sol sa yére yéene tey sa kurus dugg ci liggéey bi kon ci instant bi nga xam ne sa jëkkër faatu na ñàkk na kanam foofu nga war tàmbali li nga xam ne mooy sa tënj bul xaar mukk naan damay toog xaar ba nu rob ko ba noppi déedéet ñaareel bi sa tënj yaa ngi ko war defee sa kër jëkkër kër gi mu la dëj bàyyi la fa foofu nga war defee sa tënj lu dul nag nga ragal ni kat foofu mënatoo fay location ba wala nga ragal sax nu génnee la ngir bori location boobaa nga dem sa kër nga def fa li nga xam ne mooy sa tenc waaye fekkee nag waa ji moom moom këram dëkkal leen fa boobaa bu faatoo toog leen ci kër ga def fa seen ñeenti weer fukki fan ba tenj ba jeex ngeen soot ngeen xool nag lan ngeen di dogal après waaye tenj bi moom li fekk am nga possibilité defe ko sa kër jëkkër toogal nga defe ko fa def fa sa ñeenti weer fukki fan ba mu mat nga su koy xool nag lan ngeen di lijjanti après ñetteel ba mooy ndaw si nga xam ne dafa nekk ci biir i ci biir tenj kooku amul sañ-sañ di génn këram di taxawallu ci mbett mi di dox loo xam ne wax dëgg yàlla du farata lépp lu muy génne di ko doxee rek na nekk farata lu mel ne tey dem liggéey mën na ko def dem hôpital mën na ko def dem doxi ay soxlaam toppatoo ay kayitam loolu mën na ko def lépp loo xam ne farata la mën na ko def waaye am maa génn taxawàllu ci mbedd te loo xam ne nekkul benn farata loolu la islaam tere la lu la sharia tere la la ñeenteelu charte bi ndaw si nga xam dafa nekk ci iddatam kooku war na moytu lépp loo xam ne xeeti taar taar la xeeti toilette la xeeti parfum la solo ba ku la ne da dem xew loolu lu la jigéen ju nekk ci tey ji war na ko moytu man yéen ci ummu salama yonent dafa waxoon benn jigéen boo xam jëkkëram dafa génn àdduna mu ni ko kat comme sa jëkkër génn na àdduna moytu lépp loo xam ne xeeti maquillage la xeetu taar-taar la lépp loo xam ne xeeti takkaay la moytu ko ndax danga nekk ci jamono tey ji juróomeelu charte bi ndaw ci nekk ci biir tënj yi kooku war na moytu lépp loo xam ne waxi caaxaan la ay waxtaan yoo xam ne amul benn njëriñ amul benn solo war na ko moytu waaye tam war na fekk làmmiñam moytu yenn xeeti jikko yi lu benn waxtu dul dëgg jëw ràmbaaj yàq diggante loolu dañ la ko teree saa su nekk rawat na nag jamono bi nga xam ne yaa ngi ci biir tënj kon ndaw si na xam ne ci biir jaamu yàlla la nekk bu rëy na moytu lépp loo xam ne xeeti caaxaan la xeeti wax dëgg yàlla waxi mbóosóor la juróom-benneelu bi ndaw si nekk ci biir tënj na yokk jaamu yàlla am lépp lu mu doon jaamu yàlla na ko gën a yokk di julli bàyyi xel julli juróomam waaye tamit tey kurusam tam di wért di ñaan yàlla rawat na di ñaanal ki nga xam ne moom la nekkaloon muy borom këram ki génn àdduna naka fàttali ko si ñaan saa su nekk ndax jaamu yàlla bu rëy la li nga xam ne mooy teñ ji rawat na ay julli juróomam na ko bàyyi xel tey kurusam di ki tudd yàlla di ki zikr di jàng al alquranul karim juróom-ñaareelu charte ba mooy ndaw si na moytu nag na moytu di ku koy labat wala moom muy labat keneen lépp loo xam ne xeetu labat la xeetu mbëggeel la xeetu projet de mariage la xeetu fiançailles la naka moytu ci jamono bi nga xam ne mu ngi ci biir idda loolu moom lu xaraam la loolu moom même danu tere góor ñi sax ku ñëw di ko gaaral directement naan ko kat boo génnee ci lii ma takk la loolu dañ ko dafa xaraam loolu moom lu jara moytu la lu dul di ko gaaral ci loo xam ne wax dëgg yàlla du nekk gaaral bu direct bàyyi naa sama dàll ci buntu kër gi wala wékk naa sama mbubb ci buntu kër gi yu demee noonu gaaral boo xam ne wax dëgg yàlla du nekk gaaral boo xam ne direct la waaye lu indirect lay doon moo tax sunu borom mu ni laa tuwaa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa bu leen diggee dara ci secret muy ay promesse secrète lu dul ngeen wax wax joo xam ne wax ju njëkk la illa an taqulu qawlan maarufa kon jigéen di nekk ci biir idda kooku dañ ko tere wax dëgg yàlla muy nekk di wax waxu nobel waxu kat projet de mariage waxu mbëggeel loolu dañ ko ko tere tere tam góor ñi tam nu ñëw di ko gaaral directement tamit ci wax yu nu mel li fekk parewul li nga xam ne mooy liggéey boobu di tenji ba juróom ñetteelu charte ba mooy na moytu nag lépp loo xam ne wax dëgg yàlla aada la ndax aada yi moom wax dëgg yàlla dañu sonnal tey jigéen ñi ci ñiy iddawu rawat na ñi nga xam dañuy tënj bu lem say tànk loolu coono la waruloo sang lu dul bis sàngam wala bis sàngam loolu coono la waruloo sol lu dul yëre nangam loolu coono la waruloo génn du dul heure sàngam loolu coono la nu lay ber di la wutal bool spécial boo xam te ne lay may nga lekk wala naan la doo bokk ak añ bi wala reer bi waa kër gi loolu yëpp ay aada yoo xam ne amul benn cosaan amul benn fondement ci sharia léeg-léeg ñiy ténji dañ leen di teg coono yoo xam ne sax bu nu génne ki ténji ba ndeysaan dañ fay jaar feebar wala sax loru te loolu islam tegu ko kenn ténji daal du dara. lu dul nga sangu ba set tey sa kurus yéene jaamu yàlla nekk ci sol sa yére yu woyof yoo xam ne wax dëgg yàlla ku la gis xam ni kat yaa ngi ñaawlu yére bu ñuul yére bu nanga mag amul couleur amul dara waaw kon daal lii mooy teeñ ji nañ ci bàyyi xel bu baax góorgóorlu ci bu baax a baax xam ni jaamu yàlla bu rëy la waaye surtout nag charte bi ma mujj wax ñaar yii lépp luy xeeti euh, aada xeeti cosaan xeeti bidaa na ko moytu ñaareel ba tamit moytu tamit wax dëgg yàlla. di toilettu di jéem a euh, gaaral góor ñi sa bopp yooyu yëpp wax dëgg yàlla mbir la yu xaraam yoo xam ne jigéen ji wax na ko moytu rawat na nag ci déju tey yi tey day gis tey sa waay génn àdduna rek gis soxna yi commencé di toilettu di wax dëgg yàlla mel na sax ñoo xam ne dañuy dañuy dañuy dañuy def pour nit ñi góor ñi bàyyi leen xel loolu lu xaraam la jigéen bu sa jëkkër faatoo toogal nga ñaaw la ko ñeenti weer ak fukki fan nga bàyyi ko xel ñaanal ko yàlla toroxlu ci liggéey boobu nga nekk pour nga am ngërëmal borom bi subhaanahu wa taala yal na yàlla may dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.